Fidèle Info, votre chaîne de préférence. bu fidèle internet yi namoon nañ mais xam ni ñoo leen raw bu baax baax baax tey nag ñu ngi nii ci stade bu Niakoulrab bi ku wax stade bu Niakoulrab bi wax ne tey zone onze bu bu jaxaay bu bu bu Niakoulrab moo aye euh, seen final tuddee ko nag euh, buñ dame de valeur muy Adji Ndoumbé Sarr final bi nag ku wax final wax c'est une fête waaye ku wax final wax ambiance ku wax final wax fête wax lépp ku wax final tamit wax supporter loolu nag lañ leen di andil tey dinañ dem ci supporter jubóo yi xool lu ñu andi incha allah rabi man ak sama caméraman man nañ ànd ci Bachir xaar lañu ci image yi incha allah lépp nañ la ko relater ak final yi Bachir topp ma ñu rek. ayca Bachir ñu ñu ngi ci digg supporter jubóo yi jubóo war a ak ay Daaru Salaam ful baa nii proto baa nii waaye see ai Aïté Djibo Aïté Djibo Ngok Cay, cay, cay, cay, cay, cay, cay Lan nga wax, lan nga wax yow Djibo dóor Ñaara ngay gaye dama koy dóor 5 0 am nga confiance barki ceero dama koy lekk daarum leen du leen may dara de lekk rek laa amul def Djibo dóor signé signé. ak nag. ma doon ko trois. su dee fii fii ah ma doon ko dix. dëgg la dix laa koy toog. jiw rek ay toog premier temps deux heures premier temps deux heures. premier temps deux heures ñu jiw rek deux heures. ak kii sax lañ koy dóor ak kii sax lañ koy dóor ak kii sax lañ koy dóor. lan ngay koy dóoree ak kii sax lañ koy dóor. ak kii sax suñu ko wax Aliou Simon. sax lañ koy dóor. wala wala. jiw wala dëgg. kaay yow yow la bilaay walaay ñaar nga way kay kii da ngay dóor 3-0 3-0 est-ce que wóor na bilaay walaay yaar leen doo may dara waaw dañ ko may dara ñun yaar leen doo may dara yàlla dañ ko may dara yaar leen loo andi moo def eh du fekk lu ko raw Aja Basi sama cameraman bu ñaawul ñu ngi nii ci digg teere jubóo yi ASC jubóo seen jigéen yaa ngi taxaw e lan ngeen wax

ñun ñoo leen gën a pare la. ñaata score ñaata. ndam li ñu lay def. 2-0. bare ngeen. jeex na tàkk noonu la ngay demee saa su dee ba topp ma ñu dem yow. yow nga rek a. jubóo kese. jubóo ñaata lay gañe. 3-0. 3-0 yow ñaata. 2-0. 2-0 waaw mais deux yi moom dafa mel ni wóor na ne deux la gars yi commencé wax deux yi rek yow ñaata. ah ñaata la jubóo dóor. man jubóo. ah, ah lay doon.

tomba bañ tomba njëriñ si Baye Fall yi Baye Fall yi waaw ñu ngi lay ziar ñun jubóo rek la ñuy toog jubóo jubóo kase Daaru Salaam nee na ma dama ko for ci wéyu bëy nee na loo andi. dégg nga andi li def dégg nga Daaru Salaam lu mu def ñàkk lu mu def combat bi ba pare na dem tey soobu ni ko jëlee ñaar waay gëj ko door ñett dooruma ko ñett do ñett ba ya ñaar waay ni buñ ko dooree di sa boy doyul waay ak takkar cristal diñu gëre waaw cristal lañ takkar la diñu gëre ci moo ko daal waaye la dee ba bas yi saa ne parce ñu ngi nii ci supporter yi Fidèle chaîne